leen nuyu yéen ñi nga xam yéen a topp euh, chaîne YouTube bii di GPTV la chaîne de l'orientation dal leen jàmm ci chaque fois rek ni nga xam ni euh, noonu la ñuy àndee ak yéen euh, di leen présenter émission yu am am solo donc tey jii nag ñu ngi ak ki nga xam ni moom moo di Maodo Kandji nekk chargé des relation publiques du MAC mouvement pour l'action Euh, citoyenne moom lañ am mbégte te dalal ko tey euh, ngir ñu waxtaan euh, waxtaan bu amaam solo ci li nga xam ni moom moo di mag donc nag laataa ma ciy gën a xuus dama koy nuyu ziar ko bàyyi ko mu nuyonteeg mbokk internet yi nga xam ni ñu ngi suivre actuellement ci GPTV salaamaaleykum Maodo. Alassane maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu ñi nga xamante ni ñu internet yi nga xamante ñu ngi suivre GPTV Sénégal mu nekk plateforme bu nga xamante ni nekk na tribune bu ndaw Tivaouane ak ndawi Sénégal yëpp. ngir fësal seen xalaat ak seen gis-gis ci réew mi ak lépp lu nga xamante ni mooy doxal gox yu ñu nekk di rafetlu seen liggéey di leen bu baax di ñan chaîne bi dem ba bokk chaîne yi gën a ñu rëy ci Sénégal donc liggéey leen ak persévérance et que ñu ngi gis liggéey bu am solo bi ngeen di def ñu ngi koy saluer bu baax a baax. Euh, nga bokk ci euh, mouvement bu ñu naan mag est-ce que mën nañoo xam euh, mouvement bi kañ lañ ko créer alors le mouvement pour l'action citoyenne nekk na moom bu nga xamante ni ren lay fêter ses dix ans parce que l'a créé depuis le 13 janvier 2013 mu nekk xalaat bu ñu amoon en tant que ndaw ni war ñu mun a jóg taxaw suñu dëkk ci ni ñu ko mënee loolu tax ñu créer un mouvement mu nekk cadre de partage et d'échange d'idées kenn ku nekk ci ñun li nga xamante ni xalaat na ko ci Tivaouane xalaat na ni moom mooy tax jeunesse Tivaouane tegu ci yoon bi ñu suñu maam Cheikh Seydi Hadji Maye teg ak mag yu baax yi fi nekk yëpp ñu tegu ci loolu moo tax ñu créé ko donc ren mooy dix ans yi nga xamante ni créé nañ mouvement pour l'action citoyenne. Euh, idée bi euh, pour ñu créer li nga xam ni moom moo di mag est-ce que dafa jóge ci benn jotaay wala loo xam ne da ngeen ko doon coordonné ba ba taxawal ko la. alors idée wu mag mi ngi jóge ci constat mooy Tivaouane dëkk bu nga xamante ni grenier la ci wàllu xam-xam ndaw yi am nañu mag yu nga xamante ni bu ñu tegoo seen ginnaaw ci seen xam-xam ci seen xalaat war nañu mën a yëkkati Tivaouane yóbbu ko fi ñu bëgg mu dem. donc échange d'idées la entre ay xarit bu dem ba taxaw nekk un mouvement bu nga xamante ni c'est reconnu ñoom activité yu ñuy def mais li ko gënoon waral mooy nan la ñuy fexee ba ndawi Tivaouane tegu ci yoon bi nga xamante ni mooy jëmale Tivaouane ci kanam parce que dañuy wax émergence di wax développement mais loolu yëpp dafa am fu muy jaar mooy il faut qu'il y ait une bonne formation il faut qu'il y ait des idées claires il faut aussi qu'il des projets loolu moom moo tax ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk ci mag yëpp taxaw waxtaan gëm li jël Tivaouane ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp donc loolu moom moo tax ñu taxawal mouvement bi. est-ce que xam mën nañoo xam boobu ba léegi euh, lan la mag euh, jot a fii ci Tivaouane. alors mag boobu ba léegi muy dafay activité activité yu nga xamante ni mën naa wax don de sang mu nekk des activités yu nga xamante ni dañ ciy liggéey ak hôpital bu Tivaouane parce que bu ñu xamee hôpital xam nii bu ñu soxlaa deret ndaw ñi la ñu yaakaar ci ñuy ñëw def ay don de sang. loolu moom moo tax yàgg nañu ànd ak hôpital bu Tivaouane liggéey ci loolu bu ko weesoo doon nañ def ay activité de formation ñu tuddee ko REPEL muy réseau de promotion de de l'entrepreneur de l'entrepreneuriat et du leadership mu nekk atelier de formation yi nga xamante ni def nañ ko ak ay borom xam-xam yu dëkk Tivaouane ñu ñëw ñoom it yàq xam bi nga xamante ni mi ngi ci ñoom defal ko jeunesse su Tivaouane ba kenn ku nekk ci ñun soo génnee ci formation yooyu mu am un plus de de connaissance bu nga xamante ni gagné nga ko grâce à ces ateliers là bu doo weesoo loolu doon nañ dafay olympiade parce que comme ndaw ñi aussi pendant les activités vacances war nañu am activités yu nga xamante ni li ñu ci cadré ñu mën a def ay ay activités yu saines donc daan nañ def activités yu mel noonu doon nañ def aussi li nga xamante ni mooy grand oral mu nekk une activité bu nga xamante ni c'est une compétition d'art oratoire entre les différentes lycées du département de Tivaouane donc yooyu yëpp activités yu nga xamante ni mouvement bi nga ko doon def. mu nekk ay activités yu am solo euh, tey jii nit bu bëggoon a intégré biir mag. est-ce que day nekk lu jafe wala lu yomb. déedéet du du jafe parce que mag mouvement la bu nga xamante ni ubbil nañ ko képp kuy ndaw Tivaouane nga am yéene am xalaat bëgg Tivaouane jëm kanam mouvement bi sa mouvement la nekk lu nga xamante ni ñun ñoo ko moom ndawi Tivaouane ñoo ko moom dañu yàgg wax ni ki ñëw mag tey ak ki suba c'est la même chose on est pour un but on est là pour képp nga xamante ni ndaw nga talal lañu suñ loxo nga ñëw ànd ak ñun ñu ànd liggéey Tivaouane. le 12 août incha allah ngeen daal di taxawal benn nuit de réflexion. plus diine de gala. est-ce que mën nañoo xam idée bi aussi euh, ni mu dikki ak lan ngeen si jublu. alors activité bi nga xam ne ñu ngi koy def muy ñu ngi koy def le 12 août nekk na activité bu nga xamante ni yàgg nañu ko def je pense ren c'est set sept ou sixième édition si je ne m'abuse mu nekk lu nga xamante ni cadre de de partage la parce que suñu waxee nuit de réflexion. mooy wax nañ ni ñu bëgg ñu ñëw toog waxtaan sur un thème bien précis muy Tivaouane de et d'aujourd'hui enjeux et perspectives mu nekk waxtaan bu nga xamante ni boroomi xam-xam dinañ ñëw exposer un sujet waxtaan ci joxe ci seen ay orientation ñi nga xamante ni fekk nañ ko yëpp bëgg aussi jotal seen yéene seen xalaat ci thème bi nga xamante ni nañ ko ñu def ko donc au delà aussi de de cet aspect là mu nekk un cadre de divertissement ndaw yi daje aussi waxtaan partager un bon moment mais jotaayu xam-xam surtout fexe nan la ñuy fexe ba Tivaouane bi nga xamante ni ñëpp ñoo ko bokk fan la toll fan la jëm lan moo ko fay jëmale lan mooy taxawaayu ndaw yi par rapport ak Tivaouane boobu jëm ci kanam par rapport ak slogan yi nga xamante ni mouvement yi association yàgg nañ ko wax nan lañuy ñuy jaare ba fexe ndaw ñëpp jël yoon bi nga xamante mooy jëmale Tiwaawan kanam waaye mooy tax bu ëllëgee kenn ku nekk ci ñun responsabilité bi nga xam ne am nga ko nga assumer ko ci Tiwaawan Euh, wax nga ko léegi euh, thème bi nga xam ne moom ngeen fas yéene waxtaanee moom muy euh, Tivaouane d'hier et d'aujourd'hui mm. enjeux et perspectives li tax ngeen choisir temb boobu noonu est-ce que ngir fàttali nit ñi Tivaouane démb ni meloon mm. ci ci rafetaayam ci mm. ci ñi nga xam ne moom la fi mag ñu baax yi nekkoon looloo tax wala da ngeen a gis yoo doxalin bu changé ci diggante démb ak ba tax ngeen bëgga a waxtaanee thème boobu. waaw xam nga bu ñu Tivaouane d'hier et d'aujourd'hui dañuy wax ne nit balaa nga xam sa ëllëg da nga xam sa démb. bu ñu xamee suñu démb ba pare xam fan la Tivaouane tolloon lan moo ko doon doxal fan la ñu jaaree woon ba indi Tivaouane tey fu mu nekk bu boobaa bu ñu amee la base de Tivaouane hier nañ mën a ubbi maintenant les perspectives de Tivaouane de demain tey Tivaouane fii la tollu ci wàllu infrastructure ci wàllu développement ci wàllu éducation ci wàllu santé ak yeneen i domaine nan la ñuy fexee léegi ba Tivaouane bi nga xamante ni amoon nañ ko démb mag ñi liggéey ko mu nekk liggéey bu am solo ñun ndaw ñi suñ ko bëggee yóbbu ëllëg fi ñu ko bëgg a yóbbu fan la ñuy jaaree moo tax ma ni cadre de partage et de de discussion boobu nga xamante ni mag jox na ko ndawi Tivaouane waaye jox ko képp ku nga xamante ni yaa ngi nekk Tivaouane di fi liggéey ñu naw sa xam ndax jotaayu xam-xam la nga ñëw ñu partagé par rapport ak thème nga xamante ni moom la ñu la ñu proposé cette année. est-ce que mën nañoo xam programme boobu ñan ak ñan ngeen ci fas yéene àndal. voilà euh, programme boobu euh, ki nga xamante ne mooy Thierno Alioune Sarr moom mooy ñëw euh, def exposé thème bi moom dina def exposé sur le sujet su paree ñu ubbi nag waxtaan bi parce que comme dañu wax ni nuit de la ñi ki nga xamante ni dañuy ñëw aussi ci activité bi am nañ leur mot à dire parce que kenn ku nekk xam na ni Tivaouane grenier la ci wàllu xam-xam tey suñu damay wax ni Tivaouane lii mu am ci intellectuel ndaw ndaw na ngay dem ci dëkk gis mu am autant d'intellectuels donc comme carte de partage la su defee li nga xamante ni mooy exposé ci thème bi après nañu ubbi euh, micro yi képp ku nga xamante ni am nga xalaat par rapport ak thème bi ñu indi ñu jël ko suñu paree ñu def ko sur un document proposé ko à nos autorités ndax lañ ah, ndaw ñi kat lii na ñu xalaat gëm nañu suñu defee nii dinañ yegg fii nan la ñuy àndee ñun nag yéen parce que ñun mënuñoo dem bàyyi leen ñoom mënuñoo dem bàyyi ñu ñu ànd ci liggéey bu loolu weesu aussi Mamour. nga ni mu ngi mu ngi yor group bu tudd Xalima group mu nekk doomu Tiwaawan nekk Sénégal fépp di fi way di di def vraiment prestation yu am solo moom mooy def la partie animation donc ku ñëw di nga ur xam-xam waaye di nga divertir donc lu ñu naan c' est lii on allie l'utile et l'agréable mm-hmm. euh, tey jii yan sponsor ñoo leen fas yéene gunge ci li nga xam ne moom moo di événement wala ba tey euh, mbir yooyu yembagul. waaw yi ñu ngi ci bari na ñu nga xamante ni tey ay ndaw lañ. nekk ay auto entrepreneur nekk Tivaouane ñoom lañ ci àndal sama xel mën na dem ci euh, make up girl nga te ni Oumou Sy moo ko yor sama xel mën dem ci Weuza création mu xam ne doomu Tivaouane la nekk ndaw moom it di fi yëngatu waaye bari na bari nañ ay doomu Tivaouane yu nga xamante ni bëgg nañ Tivaouane baax moo tax xëy na ñoom ñu dugal seen loxo ñu leen di sant di leen gërëm ndax bu nit amee activité ñëw sollicité la nga nangoo tàllal sa loxo pour ngeen liggéey loolu mbaax moo koy def waaye bëgg Tivaouane jëm kanam bëgg li nga xamante ni ndaw yi ñu ngi koy def aussi mu am grande réussite donc ak partenaires yooyu yëpp ñu ngi leen di sant à travers ma voix le MAC au nom de sa de son président monsieur Mouhamadou Lamine Thiandoum mu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. Mhm. Euh, ban taxawaay ngeen di xaar ci euh, jeunesse bu Tivaouane rawatina autorité yi nga xam ñu ngi fi. waaw jeunesse bi li ñu leen wax muy ñëw activité bi seen activité la. parce que ñun xëy na dañuy mais ñoom la ñu koy defal donc ñu ngi xaar képp nga xamante ni ndaw nga nekk ci woon nga ñëw ñu ànd ci cadre bi nga xamante ni mooy niveau de réflexion bu ñu offrir ndaw ñi autorité yi ñun ak ñoom ay partenaire lañ wax ni ndaw lépp lu muy def day ànd ak ñi jiite dëkk pour def ko donc ñu ngi tàllal suñu loxo képp ku nga xamante ni autorité nga bu nekk Tivaouane nga ñëw ñu ànd te ñu ngi ci jàpp bu baax wax dëgg neex yàlla ñoom seen taxawaay ñu ngi koy sant mën nañu commencer su le premier magistrat de la ville monsieur Demba Diop si Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ak képp ku nga xamante ni autorité la ci ci Tivaouane wax dëgg yàlla ñu ngi tàll seen loxo di jàppale mag aussi ñu ngi leen gërëm di leen sant parce que nit su defalee lu baax sant ko dara newu ci ñu ngi sant autorité yu nekk Tivaouane yëpp. Euh, programme fan la fas yéene amee. alors programme bi nga amee complexe bu nekk fii Ndut balaa nga jot jàkka Ndut mu nekk cadre bu nga xamante ni aussi cadre bu convivial la. mag dina ko dina ko dina ko aménager ba ku fa ñëw xam ne ñi organiser organiser une activité c'est un grand événement qu'on compte compte organiser donc ñu ngi ci woo ndaw Tivaouane ñëpp ku ñëw daal dinga xam ne ñi organiser wax dëgg yàlla ku fa ñëw doo ko rëccu. dugg bi gratuit la wala du gratuit. alors gratuit la ndax cadre bi ñu bi ñu bi ñu offrir ndaw Tivaouane yi xëy na bu ñu nee ku ñëw joxe dix mille francs loolu loolu gratuit la parce que tey. un, un dîner de gala bu am buffet am organisation bi war am un un orchestre qui est là pour qui fait l'animation war naa mën a dépasser loolu ndaw yi ñu xam naa ne ku leen laajoo lépp loolu joxe ko mais comme dañoo nekk ci Tivaouane mu nekk dëkk bu nga xamante ni ndaw ñi ñi ngi ñi ngi yëngatu ñi ngi ñi ngi ñi ngi góorgóorlu ñu ne nañu def dix mille francs rek ku ñëw mën a partager un très bon moment en famille entre amis mais partager des connaissances une expérience de la personne qui va faire le l'exposé sur le thème suñu paree aussi ñu divertir comme ni mu waree. Mm-hmm. kàddu gu mujj bi lan la. cant kontaan ci dalal GPTV Sénégal comme ni ñu ko waxee ci début bi mu nekk ay ndaw yu nekk ci benn cadre di ci liggéey. te ndaw lépp lu mu yëngatu surtout dans le domaine de la communication dafay laaj ay moyens donc di ñaan autorité Tivaouane yëpp ñu jàppale GPTV Sénégal parce que jàppale leen mooy jàppale ndaw Tivaouane ñëpp di sant aussi di gërëm ñëpp ñu nga xamante ne ay membre lañ nekk dans le mouvement ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay liggéey bi yóbbu carte yi organisation yombul donc membre yi ñu ngi leen sant leen gërëm à travers ma voix le président vous merci bu weesoo loolu ñu sant képp ku nga xamante ne partenaire nga di leen ziar di kontaan aussi ci seen taxawaay di nuyu aussi les autorités administratives de la ville de Tivaouane di leen ñaan ñoom ñëw présider cet événement là ànd ceeg ndaw ñi di sant ki nga xamante ni aussi moom mooy def li nga xamante ni mooy exposé de thème bi moom suñu partenaire la monsieur Sarr yàgg ànd ak ñun ñu ngi koy sant di ko gërëm waaye à travers ma voix ñu ngi sant Tivaouane ñu ngi sant nawi Tivaouane di leen sant yéen bu baax a baax di ñaan yàlla jëmale ci kanam chaîne bi incha allahu rabbi maa ngi kontaan bu baax a baax ci dalal leen merci beaucoup. Mmh. asalaamaaleykum. ni tamit euh, ñu gërëm ko sant ko bu baax a baax amoon mbégte kontaante dalal ko euh, mu nekkoon ki nga xam ni moom moo di Maodo Kandji euh, chargé des relation publique du mouvement de la pour l'action citoyenne donc ñuy jub nag programme bu amam solo muy le 12 incha allah nuit de réflexion ñu koy ànd ak li nga xam ne nag moom moo di à ah, dîner de gala donc di ci woon ñëpp GPTV incha allah dinañ fa nekk jox leen lépp li nga xam ni moom moo fay xew en exclusivité dig daje bi beneen yoon lay doon ci yetu bii di euh, GPTV la chaîne de l'orientation